waaw salaamaaleykum wa Sénégal salaamaaleykum àdduna maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk turam ak man la Madior PDG Madior Sène Xewal ci wàllum ginaaru poulet de chair man maay président bi man maa ko tamit maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk turam ak santam di jaajëfal bu baax. voilà Madior ñu na xam euh, lii kañ nga ko créé sa entreprise. nag maa ngi ko démarré depuis deux mille vingt depuis deux mille vingt laa ko démarré. métti métti na méttiwul yomb na yombul mais commencement am ku ci nekk xam na lu mel ñu ngi ciy góorgóorlu ba tey ñu ngi sant yàlla. waaw loolu tamit nañ ko leeral tuuti parce que bi ñuy démarrer métti woon na trop métti woon na trop parce que commencement rek ngay commencé ci loo xam ne nii amoo ci expérience bi lool faaw mu métti waaw mais jaayante nañ ko sant nañ yàlla ba tey alhamdulilah. ñu ngi ci gis suñu bopp daal. Eh, dañ la waaw bi may démarrer rek maa ngi nekkoon ak sama benn mag mu ngi nekk marché centrale nday Fatma Ndeye Fatma Lo maa ngi koy nuyu turam ak santam moom laa nekkaloon di liggéey ak moom yàlla def ma am ci benn somme boo xam ne nii mën naa ci démarrer quelques pourcent parce que bi may démarrer maa ngi ciy commencé ay six sept pourcent ci laa nekkoon démarrage. léegi nag fond boobu laa jël gëm ci ne war na ma mën a jural lu bari ma commencé benn par benn ba tey li nga fi gis nii sant naa ci yàlla. waaw maa ngi koy ci anam bu set bu sell anam bi nga xam ne tamit dinaa fexe ba am ginaar qualité ginaar yi nga xam ne nii tamit boo ko gisee di nga ko bëgg ñëpp parce que comme ci biir la jëm dinaa fexe ba mu nekk qualité képp ku ko mënti jëriñoo rek mu nekk lu set lu sell ci noonu laay démarré ginaar du ma nangu mu tilim du ma nangu mu tax du ma nangu mu salte toujours rek nay set parce que ginaar loolu la gëna bëgg buy set di nga ci am résultat yi nga bëgg ci non la ci sonné pour li yëpp ngay gis ni bu ci toll comme yenn poids yi parce que so bëggee yenn poids yi du nangu bul nangu mu set bul nangu mu tilim bul nangu mu salte faaw muy set wecc te ñuy lekk di naan après and ak numéro suñu borom. Euh, ci bir loolu aussi ñu bëgg na xam euh, démarrage bi lu toll ak ñaata ginaar nga démarré ak jamono ji tay boy jënd ñaata coussin euh, ngay jënd. waaw maa ngi doon démarré nag comme ni ma ko waxee six ba sept pour cent actuellement maa ngi dugal dix carton mooy cinq cent sujets comme cinq cinq cent ginaar laay def moom mooy dix carton te bi may départ matul woon carton matul woon xaaju carton kon loolu doolee sant yàlla la eh, eh, na waaw métti na parce que lu tax ma ne métti na méttiwul mooy naan ku si nekk xam ne coono bi mu ngi ci mais parfois it bànneex mu ngi ci parce que sooy départ dina métti mais soo dem ba finition nga war a jaay di nga kontaan ci benn instant nga xam ne métti na méttiwul mais ci liggéey bi moom métti na trop ku ne méttiwul tamit yaakaar naa da nga cee nekkul ci liggéey bi métti na trop loolu mais boo demee ba finition bi moom dina tane mais naa sax parce que doo am jot doo mën a dem fenn waaw loolu yëpp mu ngi ci. ci loolu clientèle bi ndax am nga ay clients. waaw bien sûr bien sûr loolu moom ñu ngi ciy dolle sant yàlla bu baax parce que départ bi comme ni ma ko waxee ñu doon taxale nank nank mais suñu borom mu ñuy dimbalé ba quantité buñ munti dugal du taxaw suñu loxo ñu koy ñaan nak mu ñuy dolli loolu noonu no wa ñi ngi fexé nak parce que départ bi biir Kaffrine la woon mais instant bi mi ngi wër Kaffrine ay kungel ay Malem Birkelane ak yenn village yi nga xam ni ñi ngi wër Kaffrine kon fexé nañ ba ngi génn kafin bëgg nañ tamit mu passé sax Sénégal sax lay wax mën na dem fu nekk loolu yëpp bëgg nañ ko ci turu entreprise bu Madior seen xewal. tey jii fi ñëw fi nag yomb na maa ngi jàmm gën su ma expliqué ñu nekk ginnaaw damay wax ne bi nga ñëwee ba mairie de Kaffrine ci ginnaaw mairie bi mbedd ARD bi ngay jël tout droit avancé ba wàcc montagne bi foo laajtee Madior te muy te mu yor poulailler bi Madior seen xewal dinañ la wax ne jàddal boo jàddee di nga gis Madior seen xewal parce que soriwul mairie bi aussi it ci kaw mbedd bi. ma mhm. ko waral. waaw seen xewal nag dama ko créé ci benn ci ay taalibe yoo xam ne ni ñu ngi ci mbedd bi mooy ndongo daara yi parce que man dama tàmm di fréquenter ndongo daara yi. parfois ci ñaari ndongo daara laa ko daal ma ne quoi mënu ma def seen xewal pare def ci Madior ma def ko xewal parce que seen xewal lépp la loo mënti jaay mën nga def seen xewal parce que seen xewal. pour boo xam ne la gëm naa ne bu ma ci sukkandikoo dina ma yóbbu fa nekk. waaw euh, am nga ñoo xamante ne ñoo lay jàppale ci wàllu liggéey bi ci wàllu financement wala say waaw ci wàllum koppar bi nag sama financement bopp laa nekk di yor ci moom rek laa sukkandiku tamit ba lii nga fi gis maa ngi ciy sant yàlla ci ñi nga xam ne maa ngi liggéey ak ñoom am naa benn employé boo xam ne nii man ak moom ñu ngi liggéey ci normal ci ginaar yi. waaw ñu ngi jàppalante bu baax bu weer bi deewee. ñu jox li mu yellool ak tamit li ñu war a ñu ñu jël ko loolu yaakaar naa ne day bokk ci développement ci dëkk bi parce que lu ñëpp bokk rek ñëpp xaj nañ ci parce que bu fekkee da nga ko jël yow kese nga téye ko amul benn de benn njëriñ nga xool nit kuy chômé muy benn jeune bi chômé nga woo ko pour mu liggéey ak yow loolu yaakaar naa yaa ngi participer ci dëkk bi te ñu ngi ñu ngi nag bëgg yàlla may ñu xéewal boo xam ne mën nañ jël ay employés yu bëree bëri bari suñu liggéey bi di leen ci fay ndax tey yow nga am wala am même temps nag amul benn ONG amul benn entreprise waaw fu ma jàppale projet bi nii man kase maa ci nekk di jóg di daanu mais nag su ma amee ku ma jàppale ci sama projet parce que bëgg naa am gën yaatu fii ba tey maa ngi tàllal ku si ñëw baax na. tey bu ñu ci lan lañ la war a mën a ci cadre ginaar rek parce que nit ku nekk loo boo koy financé da nga koy financé si lu mu xam boo ñëwee.